2014 au sein même du parti de réunion ay responsables, orchestré ay complot dénigrement si nous ci sommes école à la tête de la mairie de ville ñu yàqante yakanté, xasante dénigré pour le frère Idrissa Seck Diaz. parce que nous nañ si ci sa ñooñ ñi parti Nek ci bopp mairie yi bu ñu bu ñu ci bir liste yi sax di nga ñak ñu jëliwaat benen doxandeem mu ñew ñukay koy wax Talla Sylla ba mu ñewé gis ngeen lu mu ñu def war nañu andak Macky Sall jël ñam bu duuf bi di ko bëgg wedd mais mënul nek parce que ne ni wedd kenn du ko jeex nee na jëndul par carte jënd na carte réew mi pour jot mairie bi ba mu jotee mairie bi lañu ñu won ginnaaw kon jaamu Thiès mooy Talla Sylla c'est un traître un traître c'est un parce que bu dul woon le parti réew mi bu dul woon Idrissa Seck du Moussa doon le maire de la ville de Thiès c'est un traître Lolo nous Nous, au nord on va démarrer la campagne électorale dès demain Dès demain, il s'est inauguré le poste de santé le 29 avril nous allons organiser une rencontre citoyenne sur le boulevard Nguent. et nous comptons mobiliser plus de 2000 personnes Ce nous paraît le 29 avril le 13 mai ñu ngi jëm Poñel inaugurer le poste de santé de Poñel le 20 mai nous ngi jëm Kawsara le logement wu le poste de santé Si nous paré le 20 mai le 27 mai il y aura le forum bu organiser des jeunes et je compte mobiliser 500 jeunes pour transformer les en des volontaires ñu noppalu ci koor bi juillet ñëw ñu dugg ci campagne bi la 30 juillet ñu leen ndam dafa am ku ma laaj ne ma waaw yéen waa réew mi mënatu leen gagné bi ndax mairie ville am na ku fa animé mouvement askan bi waa bennoo aussi sekk nañ leen yéen mënu leen rëcc ma ne ko mouvement askan bi buñ doon wax plat dafa ñoo matul entrée mais Benno Bokk Yaakaar matuñu bras de résistance bu fekkee ni joxante nañu loxo ànd et que tous les responsables du département taisent leur ego ñu jóg ànd ma ne gars yi mënuñoo séet mais day fekk ñu joxante loxo yéenante jàmm parce que booy wax sa lu yàlla sottil na lépp mais bu ñu àndee nekk benn lu ñu song daan ko loolu moo doon du leen gërëm du leen sant